kën naa bu ñu sant yàlla di julli ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu jotaay bi yëpp góor ak jigéen ndaw di jiital ci jotaay bi ki yàlla jiital muy suñ sëriñ suñ doomi sëriñ Cheikh Ibrahim ibni Cheikh Ahmad Tidiane ibni Cheikh Ibrahim ñu gën koo xam ci Baye Cheikh suñ ko nuyoo yóbbaale na ñëpp di ko gërëm ci li ñu fekkee fekkale ci suñ bés bi nga xam ne bés bu seer la ci ñun ndax euh, réeru ne bis bi dafa tombe ak ñi nga xam ne ñoo yaroo ci kër Papa Cheikh doon ko defal ziar moom sax foofu laa njëkk a jaar ba jiite fa timis soog di ñëw fii jotaay ba jeex ak li muy sonn sonn bu ñëw fii kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di dokkeel Seydil Mouhadir di ko jaar yàlla yàlla defal ko tawfiq ni ko sama nijaay waxee jëb yaa ngi soog di gisante mais xoole gisante nañ démb ndax ñu ngi déglu ay mbiram muy Oustaz Aliou Ndao yàlla na la yàlla yokk ànd dafa la tawfiq ci zahir ak ci batin di gërëm ñi nga xamee ñoo doon ma nañ ko tuddee rafiqu darb ba ñu xamee suñ ndaje ca mooy ñoo àndoon danañ ci du Baye Diop Ousmane Tamba suma jaay Mohamed bi tey Demet ak suma baay Papa Mahmoud Papa Janka ñun ñi yoroon ànd biñ nekkee tout tànk biñ demee ba yàlla def ay tëjaliyaat kenn ñu sànni seen wal ñëw rangal ko Cheikh Ibrahim kon eh, suñuy mbokk ñu leen jaajëfal di gërëm daayira bi ci njiital Aziz Ndiaye bi nga xam ne mooy président daayira bi nga xam ne dawaayir yi nga xam ne moo aju al waxu fi mooy seen jiit di jiital di nuyu bàyyiloo ah, Ablaye Lo di mois moom tam di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko tawfiq danañ rek tarxi tuuti ci waxi alaaji Ablaye Aydara yi gën ko xaas ci kii xam ci as Aydara wa shahida shahidun min ahliha lim doon wax ci li nga xamee ne moo doon ñool ñooli ci xolob xolom bi ci bi Cheikh Baye Tuuti génne àddina ndawam li nga xam ne yónni na ko pour mu wax ne moom dañ ko sampal prévision dafa feebar ndaw loolu ci man mii la jaar fekk maa ngi téye xat mu Cheikh bi war koo eh, war a tëj kaamil bi doon jàng ci kër kër Cheikh Baye Tuuti xale bi sax xamee ma ko mais góor la mu ñëw ma ay dara nee na ma wax la ne moom dafa feebar ña nga ko sampal prévision kon li muy doon wax ñun mën ko dëggal ndax ndaw la ci mën la jaar. a ah, duñ guddal jotaay bi ndax jotaay bi jot na ba pare wala yàgg na ba pare li fi Seydil Mouhadir wax kenn mënta wax lu ëpp loolu kenn mënta wax lu ko gën a jotal wante li nga xamee ne waxtaanam yëpp mi ngi ko tënk ci maxalu shahid al muhabba ñun itam jotaay bi ak bi dañuy wax ne mahalu shahid bi moy al mahabba mahabba Cheikh ibrahim Mahmoud ñes ñep ku wax rek wax nga ko ndax liñ ko xamal bari nak fi ci tante bi wala ci biir ci salle bi kep kuñ fi joxon micro nel waxal ci Cheikh ibrahim Mahmoud ñes da nga wax lo xamne do ci delu wala da nga wax lo xamne sa borom wax ko kon kooku xam nañ ko bu baax mais mom nak mo joxon bop mo ñu joxon sédé bo xamne nañ ko ko di sédel ci jotaay bu nek ne suma yàlla momé nañ ma seedeel bëgg Cheikh Ibrahim kon mahalu shahid bi ci jataay bi ak li waral ziar bi mooy mahabbat Cheikh Ibrahim ci Cheikh Ibrahim ndax yoon sallallahu alayhi wasallam daf ñu ne kenn ku ci nekk ak ka nga bëgg kenn yéen dëkk keroog kon bëggee nag Cheikh Ibrahim ci Cheikh Ibrahim moo jur lii nii te mooy continuer ak njaboot gi kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yokk ko leer yàlla uutu ko ci njaboot gi teg leen ci fi nga xam ne fi seen bay nekkoon ndax Cheikh Ibrahima mu ne bokk na ci xam taarix fekkee ndax mosuñoo tàggoo mag moom ba tey Cheikh Ibrahima bi ñu ko laajee ne ko sa mbokk ak sa xarit lu la gënal daf ne elent kon mbokk nekk di xarit nañ bokkee ca Mahmoud tey noonu lañ xaritoo woon défendre ma fu nekk mënal na ma lu nekk rawatina waxtu xurba biñ ñu nekkee Kaahira benn bourse lañ doon dundee su génnaan amul dërëm rek pour nga xam ne am na su ñëwee du fëgg tànk bi lay du fëggee bunt bi nga gis ko mu gàddu yàlla nag nattoon ma temps bu ko yàlla di xéewal da fekk keroog bés ba man ma ayee su ma toogee su ma gisee mu gàddu ay mbuus rek su ko defee sama xol bi bon ne xam ne la muy indi mooy dàq foofu la may la ma nar togg te dana dana lamb su ko mu daal di ok gaay yi nee na kii fi na xol baa ngi bon kon nag kuñ xam la wax ci moom nag mooy wax ci suñu bopp danañ nettali benn anecdote rek bu ndaw ci bi Cheikh Ibrahima bi ko euh, Liban ki invité booba euh, Nizam Maliki boo fa nekkoon mu ne buur bi toog ak bàyyi laaj ko question yu nekk ba ci dernière question mu ne bàyyi benn question donc moom la sama diggante yow sëñ bi ndax dégg nga tubaab lii ci oustaz keset maa ngi ko yoroon lii ci kii oustaz laa ko déggee ci kaset mu ne ko sëriñ bi ndax dégg nga tubaab bàyyi na ko déedéet son bàyyi moo tax oustaz daal di jóg ne ko sëriñ bi fii maa gën a mën a leeral hmm. duñ mottali la Cees mais muy wax di wax di wax di wax di wax bàyyi koros ko ne ko Barham ko moom kenn wax ci sa bopp kon nag toog fii ne bàyyi tuuti nii la mel Cheikh Ibrahima Mahmoud nii la mel loolu eh, yaakaar naa ne dafay mel ni damay wax ci sama bopp kon nag te gannaaw jotaay bi jug gudd na eh, dèjà nit ñu sonn nañ kon ñu ngi ñaan yàlla yal na yàlla àggale daayira bi ilaa baril amaan li nga xamee ne bëggoon na ko ci njaboot gi yëpp yàlla na ko yàlla àggaleel ndax moom xam nañ ne am na ngërëm su amee ngërëm nag njaboot gi dañ am ngërëm ndax moom bëggutu lool boppam dara xanaa jaamu yàlla la bëggoon. oustaz am kii imam wax na ko fii nii dafay dem programme ñu jox ko enveloppe fi mu toog fi lay xottee enveloppe bi séddale ko ba mën naa demee loxoy neen. dundal njàmbur gi moo ko gënal dundal njabootam kon yëpp xam nañ ko te ni nga ko xamee yéen noonu nga xamee. kon nag ñu ngi sant ñu gërëm yàlla ñu yàlla bokk dimbale yàlla ñu yàlla wattu fépp foo xam ne ku ñu fekk naw ñu yàlla ñu fi yàlla xiir fépp foo xam ne ku ñu fekk xeeb ñu wala nga bañ ñu yàlla mu yàlla natoo aman zalika allah bi aziz asalaamaaleykum wa I mean,